jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97 point 5 kàddu gi di bàyyi ko fii ci Sodida Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi Mamadou Diawo Diallo moo nekk ci wàllu xarala gi mbokk ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen di jaajëfal am mbégte ñëwaat ci seen émission pencum réew mi comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu. tey nag euh, ñu dellu am mbégte daal di euh, dalal euh, Moussa Diakhaté mi nga xam ne moom mooy yor kàdduk parti bi nga xamante ni mooy convergence benn bokk gis-gis te président Pape Diop daal di koy jiite ancien maire de Dakar tey nag ñu fas yéene waxtaan ak Moussa Diakhaté ci lu jëm nag ci seen parti boobu bokk gis-gis ak doxalin wi ginnaaw loolu tamit danañu wax ci li nga xamante ni maanaam mooy actualité bi. lu jëm ci wàllum njëg yi nga xamante ne gis nañ ne dafa yokk ak euh, lu soxal tamit mbirum démocratie Sénégal ndax gis nañ ne am na ay rapport yoo xam ne dañoo wane ne Sénégal dafa deltu ginnaaw ci mbiru euh, démocratie ba pare tamit corruption gis nañ ne euh, dafa mel ni daal dafay gën a bëri ci réew mi ak dialogue national bi loolu lépp danañu ko daal di waxtaanee ak kujje gi nga xamante ni jàpp nañ ne dañoo noppi ci li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi lëmbaaje réew mi Moussa Diakhaté Euh, ginnaaw bi ñu delloo am mbégte bu baax a baax ci wuy si invitation bi ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Abdou Khadre di la nuyu di nuyu mbooleem waa kër gi di nuyu auditeurs yi nga xam ne ak auditrices yi ñu ngi nuy déglu ci bés bi. di nuyu itam sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel di beral nuyoo nag suma waa parti rawatina mm-hmm. suma président le président Pape Diop. Mm-hmm. ak mbooleem militant yi waaye làcc bi nag nga may ma ci ma nuyu waa ndakaaru ndax fi laa bokk Euh, jigéen ñeeg góor ñi Adja Ndeye Ndiaye ak ña mu jiite góor ñeek jeunes yi tout le monde waaye beral loxo plateau ga nga xam ni. Mhm. danañ ci ñëw xam naa maa ngay samp waajal sama ndënd. di jox nuyoo bi Adja Khady Gueye présidente des femmes ak ñoom Sophie les jeunes. di nuyu ñëpp daal képp koo xam ne ni yaa ngi plateau. tàllal naa la loxo nuyu naa la di ziar aussi liggéey bu rafet bi nga xam ni ñu ngi ko fay tàmbali. kon plateau yaa ngi doog ñemee samp sa ndënd. bii mooy sama ñaareel bu dee am nga seetlu 2014 j'étais candidat demee sama liste bopp man kese am conseiller ca mairie ba. di nuyu sa sama conseil municipal Omar mbay jàpp nga ne jamono ji euh, am nga fa ndëgër laay euh, xam nga politique moom euh, dox la wax la ñeme ko sur le terrain soo bëggee lu baax nag jàpp naa ni yoon wi dana métti dana gudd waaye ñi gëm dañu ànd ak yow yaa ma gën a xam politique gu léegi ni muy defee su mhm. poos yi feesul mhm. na ni lu bari du yomb waaye gëm naa ni fële ca plateau la ñu war en tant que leader politique ñu ngi koy def mhm. mooy yeete buñ xewlee ñu fekkee am gis-gis bokk bokk ak nit ñi mbiru local nag day weesu politique d'accord léegi euh, Moussa balay émission bi jeex danañ daal di dikk ci euh, Dakar Plateau googu nga xamante ni yow euh, fa ngay militer te nga wax ne euh, candidat nga incha allah ci élection gox-goxaan yi nga xamante ni mënuñoo wax sax ne kañ la ak ni mu tëddeeg yooyu yëpp danañu ci daal di ñëw waaye nag dañuy dooree waxtaan wi ci li nga xamante ni maanaam mooy actualité bi ñu gis ne njëg yu baree bari daal na yokk waaye bi ñu siy waxtaanee mooy lu jëm ci wàllum njëgu courant gi courant bi nga xamante ni yokk nañ ko Moussa Diakhaté lan moo ci sa xalaat en tant que porte-parole bokk gis-gis. waaw xalaat bi njëkk balay porte parole boo gis-gis sa sénégalais bu yor kër état waxoon ñu ci lu yàggul dara ni woon ni courant bi amoon nañ ci lu doy mhm. doxoon na bañ wàññi ko ba jàpp nañ ni mën nañoo jël dem jaay sous région ñu xëy seetlu ni lañ ñu waxoon furaas dañu xëddeem mhm. loolu yëpp bokk ci li ñuy wax euh, cuune ñàkk mën waaye li ciy gën a métti mooy bi ñu lëlbëtee gis nañ ni li ci ëpp mooy mauvaise gestion ñun nag yàlla dafa def bokkuñ rek ci ñiy xaxar ni baaxul doyul buñ xaxaree ni ñii mënuñu dañuy wane yoon ndax ci loolu lañu président Pape Diop nàmpatal te ci loolu itam la ñuy dox ma jàpp ni balaa ngay booti gàmb sa mbootu jot bi ñu defee rapport gis nañ ni alal ju bari ñu ngi koy def Senelec jubale ko ci gàmmu yi jubale ci recrutement politique bi dibale ci dimbale ay nit yow sa kër sa dépense matul balaa ngay maye ñu jàpp ni li war a njëkk mooy une gestion sérieuse Sonac de de Senelec xaalis bi ñuy passer passer ñu delloo si ko ba pare Abdou Khadre yow mii am nga xarit buy liggéey Senelec yow xam nga ni ñoom duñ fay courant koo ci dem këram ñetti climatisé ni conso nañ commencé rationaliser loolu comme ñëpp ay fay ñu tàmbali ko hmm. waaye itam état tam tàmbali li ñu wax la preuve par l'exemplarité bu ñuy woo nit ñi bëgg ñëw sa sa facture yokk na sama bos yokku na nañ ko tàmbalee ci nguur gi na ku nekk joxe état Macky Sall le président. Hmm. fonds politique am yooyu na ko wàññi. assemblée wàññi milliards yi ñu soxla danañ fa mën a dugg loolu mooy lu njëkk beneen bi Sénélec dañ ko war a méngale ak jamono dañoo toll ci jamono joo xam ne. Hmm. Sénélec mooy lijjanti production ba. Sénélec mooy lijjanti transport ba. Sénélec mooy liggéey te njaay ma àddina tollootul foofu. seen bërëb yi ngeen di liggéeyee sax. Mhm. am na production yoo xam dañ koy externaliser. Mhm. da ngay jël ñoo xam ne nii seen liggéey mooy jënd courant bi kese. am ñoo xam ne seen liggéey mooy transporter ko kese am ñoo xam ne seen liggéey mooy jaay ko kese su ko defee dina am une rationalité su boobaa sénégalais yi li ñu doon wax dana am waaye su fekkee da nga ko seq ak ñoo xam ne. lu ñu la wax am na lu ñu lal ca ginnaaw day xaw a métti. yow yow xaalisu Senelec da nga yaakaar ne Senelec dafa ñàkk xaalis moo ko waral ak bu dee dafa ñàkk xaalis euh, lan moo tax mu ñàkk xaalis. mooy du ñàkk xaalis koo xam ne yow amoo monopole yow kese la. Mm-hmm. mënoo ñàkk. Mm-hmm. parce que nag baril de pétrole bi wàcc na wàcc goo xam ne gënoon na fee métti ci jamono yi président Abdoulaye Wade duma koy sargal au passage. te courant bi yokkutoon. te courant bi yokkutoon. loolu mooy dimbale askan bul fàttali ne at jii ñu génn Abdou Khadre wax nga ko fii. lañu waxoon année sociale. Mhm. waa année sociale nga ñëw xoj nit ñi yokku leen problème de gestion moo am problème de vision moo am problème de planification moo am Senelec nii muy tëddee nii nii nii nii. Mhm. mënul mënul dékku fa ñu jëm il faut ñu réformer ko mu tolloog jamono jamono ji mooy li ma la wax léegi nii foog ñu def ko ay pàcc yi pàcc ñu dénk ko ay ñoo xam ne xarañ nañ waaye su fekkee ni ku jóg bëgg fu ñu la dugal ñu ni seetil directeur Senelec ku xew la ñu ni demal mu jàppale la ca. day am problème te si ñun lay dal. d'accord ab développement nag cim réew ci réew mi fi ñu toll. mënul la ñol su fekkee ni problème mu courant. ba léegi daa nekk problème ci réew mi. waa mais euh, est-ce que tamit euh, Ali Kalaj gi Moussa Diakhaté dañ koo waxul mooy Sénélec man dama déggoon ñoo xamante ni tey ay uh, syndicalistes lañ yu nekk uh, Sutelec di wax ne uh, courant bi léegi tey mu yokk wala coupure courant yi commencé loolu la ñu waxoon euh, deux mois avant ñu yokk courant bi nañoo ñoom. bor bi nga xamante ni état bi amee na ko Senelec plus de deux cent milliards moo tax Senelec nekk si jafe-jafe mais bor boobu tey euh, ba léegi nii gisuñ gis nañ ne euh, waa Senelec weddi wuñ ko est-ce que su doon tey état bi amel na bor boobu fay leen ko jafe-jafe yi yëpp euh, mënul saafaraw mooy li ma la wax rek gis nga bu fekkee ni état mooy kilifay Senelec yorel ko bor te fayu ko mm-hmm. day nërmeelu man mosuma mettre en doute ña yor Senelec wala techniciens yi fay liggéey dama ni politique énergétique bi moo mm-hmm. mënta continuer di jël loolu ci Senelec mënul dem moo tax ma ni la bu ñu ko defee dugal ay partenaires privés mhm. dans la gestion mhm. di on sera plus dinañ gën a sérieux mhm. ci ci ci mais bu fekkee ni da ngay jël ci poste bee dugal ci poste bële des dette bi day gën a yokk te yow yaa koy fay man maa koy fay moo tax état ñu koy ñaan foofu itam parce que njëgu courant bi ni ko nit ñi waxee métti na ci kaw nit ñi waaye bu fekkee nii la continuer te anduñ ci solution day gën a pire. Ah, yow da jàpp ne Macky Sall dafa amul gis-gis. bu dee am na gis-gisam wuute na ak fi ko Sénégal di xaar ndax ni Macky Sall amul gis-gis pour man jàpp euh, soxor la añaan la wala sa bañ doon nit ku ku matul mhm. ndax itam nag nit ki loo ko bañ man jàpp naa ni képp ku jaar ci tànku Ablaye Wade bu dee benn fan la rek am na lu la jàngal ci politique damay nangu loolu mhm. waaye léeg-léeg sa gis-gis mën naa bañ sori mën naa yem jam ñaajo parce que am na ñu gis yoo xam ne àgg na ba Lompoul am na ñu seen gis-gis àgg ba Afrique am na ñoo xam ne seen gis-gis weesul jamñaajo xëy na moom nag. daa mel ni daa mel ni bosam. ni ko benn kilifa politique di waxee xëy na daa des jam ñaajo. d'accord xam naa ne euh, dana ñëw ci euh, gis-gisu Pape Diop moom ba xam génn euh, romb na Patte d'Oie. la léegi léegi Moussa ginnaaw courant bi nga xamante ni tamit yokk nañ ko gis nañ ne collectif ñoo lànk juddu di ko xeex waaye dañoo gis tamit kàddu yu Makhtar Cissé moom mu wax ñëpp di ko dégg mu ne fi càmbar nañ ko xool nañ ko biir ak biti fii ak ñaari at courant bi munu fee wàññeeku. Euh, te collectif bi ñoom nee nañu du ñu wàcc mbedd mi mukk te te te wàññiwuñu courant bi euh, yow lan moo ci sa xalaat solution. waa sama solution mooy xeex rek. jaaduwul wàcc mbedd teguwul ci yoon carrément xeex ko. gis nga askan lu mu nangu ñu teg ko rek mu dagan ci moom. lu mu xeex mu xeexu gis nga état moo war a discipliner ay dépenses moo war a réorganiser wu. parce que malheureusement comme tu l'as bien dit du courant bi rek courant bi c'est moins grave. Mm-hmm. ndax euh, boo ko amul du tee nga dund waaye ceeb bi sama mbokk siise siise yi mm-hmm. léegi ñu commencé yuuxu ak diwlin gi ak diwlin gi ak meew mi ak meew mi ak suukar si c'est bu courant yokkoo produit de première si yëpp ñooy yokku dañ ñu nax président Macky Sall xamoon na ni day yokk ndax comme dafa jubloon ci élection moo taxoon mu ñaan partenaire au développement yi ñu may ko ba mu génn ci élection mu tuur ñu lëndëm génn na sénégalais xam ni ñoom ñi woteeloon Macky lu luñ dundoon ci sept ans yi lii ñëwee gën a raw lu leer laa lay wax. amul caaxaan non mais dégg naa yow sa leader wax ne euh, yokk courant gi euh, maanaam bettu ko woon. waaw parce que xam nga itam nag booy politique da ngay gëstu ndax ñun xamoon nañ ni partenaires yi waxoon nañ ñu fii lañ jëm artu woon nañ it ca njëlbeen bu dee siitu nga campagne bi. Mhm. boobu ñu ngi ànd ak le président Idrissa Seck. Mhm. wax na ko ci campagne ñëpp dégg ko. dégg nañ ko waaw ñu bari dégg nañ loolu. loolu nag xam ne ni kon du lu ñu bett ñun. maanaam ñeneen ko ko war a yokkaloo Macky Sall yéen ni ngeen ko doon waxee si élection yi mooy na euh, ginnaaw élection yi njëg yi dina yokk te gis nañu ginnaaw élection yi njëg yi dafa yokk maanaam ñana ko war a euh, xoj ba mu yokk loolu mais mooy les partenaires au développement waa banque mondiale gis nga daa am ñoo xam ne ni ay FMI ak consort soo wekkoo ci condition yi ñuy def pour nga mën a leb am réew moo xam ni la muy dundee la ëpp da koy jéggaani mhm. économe la ëpp day génn réew ma mhm. réew moomu dañ koy tuddee réew waaye district la wala sous préfecture ña ca biti ñoom ñooy doxal ñooy buum ñooy bummi foog développement wu Sénégal tàmbaleewuñu ci li ñu moom te am ko góor góor góorgóorlu yaxanal li ñu am ci nii rek la ñuy kon ñoo si mbubu njàmba tey tey la wàllu tey la wàllu gën a ay dégg nga barki démb bi fi président turki bi jógee li fi baax yóbbu na ko kon maanaam si mbirum économie Moussa yow jàpp nga ne ñun dañoo nekk ci euh, ba léegi ni daal si mbuumu njaam lañ nekk wax ma lu baax ci réew mi te doomu Sénégal moom ko kon jàpp nga ne dara lu. déggoo li ma la lépp lu baax ci réew mi économie bi li may wax kay économiste boo jël teg ko fii mu wax la dëgg l' économie sénégalaise est li baax tubaab bee koy dajale. léegi ci léegi Moussa est ce que tamit FMI ak banque mondiale euh, gi ngay wax ni est ce que du dañoo lebal Sénégal xaalis ñun fañ ko war a dugal dugaluñu ko fa. Uh, amuñu ay koppar ñu ne leen pour ñu lebalaat leen wala ñu lànk ñoo lebal moo tax ñun ñuy yokk njëg. non ñoom pour ñu lebalaat la. waaw wala dañ lay wax ne la ci fii nga koy def. ci lii nga koy dugal dañ lay jox ay orientation te ñooñu amul mennum réew li may wax ci rajo laa koy waxee mu mën a sukkandiku ci ñoom mhm. bu yóbbu sa bopp amul mennum réew nag mu mos a développé wu mhm. bu jaar ci indication FMI wala banque mondiale mhm. pour yóbbu ñu loolu ay mécanisme la pour maintenir ñu ci mbumum njaam ci lañ nekk fi mu toll nii xoj nañoo xoj le président Macky Sall ndax lépp naa lépp dégg naa sa euh, ministre affaires étrangères daw na dellu France pour jëli bougie bi war a taal bi nga xam ne ni weer wu nekk ñu dig ñu ne suba muy dem naan ñu fast track te fi ñu mujjee mbir mi gaa ngi noonu. d'accord mais mais mais Moussa tamit euh, man xam naa ne Macky Sall yow tamit xam nga ne Macky Sall bu doon moom moom kese du yokk xam nga président bi yokk njëg yi amul ko benn njëriñ euh, yokk googu dafa nekk loo xam ne lu mënul ñàkk la wala man naa ñàkk yow pour yow man naa ñàkk. mën na ñàkk yokk njëg yi mun na ñàkk bu état bi ñoŋalee ay dépensam mala buy amitam itam nañ wax nit ñi dëgg. mais Macky wàññi na fi dépense yu bëree bëri. nañ wax ba tey loolooy cëram. Mhm. looloo ñu tax ñu fal ko. Seydou gis nga ñun saa yu ñu defee act bu baax. Mhm. ñu ne yaaram kàlla saa yu doxulee ñu ni doxul. en tout cas fa la ñu war a taxawee même opposition bi fa laay invité tout le monde c'est-à-dire soo ŋàññee da ngay wane yoon ndax ŋàññi yomb na lool itam. Mhm. Sénégalais dañ commencé sonn ci ñuy dige du ñu def. foog ni ñi wax leen yoon bu ñu mën a teg seen baaraam ba bu ëllëgee bu tànnin joxee ñu mën la tànn mais jàpp naa ne am na nu président Macky Sall doon doxalee du demee ni mel dégg nga gerte gi te te ci di jëm. Mhm. Abdou Khadre est-ce que yëg nga ni million ak ñaar téeméeri nit ñu nga fële ca Fuuta ga xiif di leen yott. waaw xiif bi. gerte gi est-ce que yëg nga ni amatul ci réew mi ba dégg naa démb la ministre de l'agriculture li muy bañ bañ bañ génne benn arrêté ni bu ko génn génne réew mi est que xam nga ni capital semence yi déwén soo moytuwul sama mbokk ca Saalum duñ am lu lu mais mais Macky Sall ma ngi si woo Erdogan pour ñu dugal Turquie dugal seen loxo si eh, njënd ak gerte mi. waaye gerte te ministre bi li mu wax moom boo bokkut ak safaana la président wax. déggoo ma ni la sabar gu tas la amul planification gerte gii liñ lay wax ni lañ mbay bayuñu ko dégg nga ni lu toll ni ci junniy doomu aadama ak lu ko topp ca Sonacos dañ leen defal ke ndax amuñu liggéey ndax Sonacos huiliers yi amuñu gerte gu nu def li ma ci gën a métti mooy sama mbokk li ñuy wax capital semencier. Mhm. moom moo ju moo nar a naxasaay maanaam mbayum gerte. Mhm. mu ngi waaj a ci mim réew. te nag ba fii may wax yow. Mhm. naam war nañoo yokk leneen ci mbay. waaye mbayum gerte sama mbokk yee ca Saalum. ca Kër Saandaw wala Kër Saabuya. xam nga ni boo leen xañee gerte yaa ngi leen di xañ seen avenir. parce que lii li ko wane muy cuune ak ñàkk planification. waaw mais dëkk bi tamit euh, Moussa Diakhaté ñu bari dañuy wax que ne Sénégal moom jamono ji maanaam demul cëng dikkul mbay laa réew mi ci boppam. maanaam moom bloqué wu askan wi ñëpp di jàmban naan dëkk bi dafa métti dëkk bi amul xaalis nit ñi dañoo dañoo sonn lan nga jàpp ne moom mooy saafara si li njëkk mooy il faut ñu jubbanti balaa nga naan fast trac day fekk nga tegu ci yoon le président Macky Sall semble dafa mel ni ku raté premier mandat ndax daa ñëw ci ay fayantoo waaye ñëw itam am ci lum ñu woo. mais premier mandat def na réalisation nag. waaw xam nga ab njiit borom kër bu joxee dépense du ngóora mooy cëram mooy wàllam danoo jël lépp dénk ko bokkuma ci naan defuñu mais dama ne lañ def lañ dige woon. Mhm. lañ def ak fañ leen doon xaar foofu la nattin di tollee. Mhm. lan nga doon wax si fayantoo bi. mooy dama ni foofu la bu ñu la falee. Mhm. yàlla fayul la donte parce que Macky Sall bi ñu koy fal du kiñ yaakaaroon honnêtement. ci biir PDS du moom lañ yaakaaroon ne mooy doon Ablaye Wade. ci réew mi aussi ba ñu def élection à trois mois des élections suñu la waxoon tànnal entre Macky sàll Moustapha ak euh, Ousmane Tanor Dieng amaana ni Macky Sall du nekk sa premier choix mais yàlla mii fal fal ko kon yàlla fayul ko yàlla nangul ko yàlla jox ko mu waroon ñëw nag liggéey réew mi waaye ñëw nekk ci fayantu tëj ak tëjji. mais demande sociale la woon ñi ne ñoo ñoom lañ jàppoon ne dañoo luubal. alal demande sociale kan moo al luubal al ci ñi jàpp kan lañ luubal amoon luubal askan. Euh, ko. amul fenn fu ñu wane ni. mais moo ko daan justice nee Karim moo def justice la ko Karim wax ma même réew bu dul Sénégal la Karim am Karim kenn toppatoo ko ci gestion la ko état dénkoon de dañ na ko li ngay am yéem na nit ñi waa Karim rek li mu am moo yéem nit ñi le président Macky Sall li am yéemul nit ñi ñi mu àndal li mu am yéemul nit ñi son frère li am yéemul nit ñi CREI dañ ko defoon uniquement pour fayantoo ma ni foofu la Macky Sall juumee en premier lieu suñ la falee da ngay jublu ci liggéeyu askan wi pendant cinq ans presque jàppal tëjël xupp dëj loolu mu tardel ko jéem am na lu mu jéem ubbi tey suñ ne la plan Sénégal émergent su ne ñu ne la yoonu yokkute ginnaaw suñu ñu la cinq trois cinq mhm. mais ni ñu doon tantu di làmbantu am na lu ñu jéem naam waaye bañ waree baral malheureusement moo baaxul donc foog ñu jëñonti mhm. tegaat réew mi ci yoon mhm. président Macky Sall nangu wax ak askan wi jublu ci liggéey ko ànd ci ñi ko mën te bañ a fayantoo waaw euh, Moussa euh, li nga xam ne mooy euh, collectif ñoo lànk est-ce que yow jàpp nga ne xeex bi mën nañ koo xeex ba nguur gi dellu ci ginnaaw Euh, man jàpp naa ne xeex bi ñu laj mooy bi kenn jéemul dara hmm. politique ak démocratie ak loolu ñoo ànd lon lank li ñuy def lu ma ànd la lu ma gëm la hmm. waaye dafa am aussi une autre vérité bu ma gëm man mooy sëñ Abdou ah. man xeex bu may xeex ci politique hmm. day fekk ma def kook sutura def kook worma def kook yiw du ma saaga duma xaste ñoo lank dañuy saaga am na lu ma dénk ni am na ku ci saaga président Ablaye Wade ci ay waxam. Mhm. su dee am na. Mhm. def na lu dul dëgg ndax réew mi. Mhm. ku fi xëy marche. war nga wax ab Ablaye Wade ndax nag bam ko moo ko xeex ba tey mu nekk une loi yàlla def mu tombeek muy président mu def lu ni mel. kon ku war a marche ak loo am différent moom war nga koo mun nangul lool jox ko cër boobu su dee am na laa wax beneen bi mooy. libération gii Marius Sagna dama ci ànd à cent pour cent waaye réew mi dafa bëri baal ma wax ji ñoo xam ne dañuy show. la ñuy wax gëmuñ ko ndax man jàpp naa ni ni ma àndee ci libération gi Mari Sagna noonu lay àndulee ci dem bi mu demee ci gris bu palais yi. se pas ci dem palais déedéet. lu tax parce que institution la su ma ci àndoon bu subaa bu ko defee dama ko war dem defi ana Guy Marius Sagna. maa ngi ci kaso bi ana ñeneen ñi. ñoo lu tax. la meilleure manière de soutenir xeexu Guy Marius Sagna mooy dem def lam def su ko nit ñi deful xam na yan wul maanaa. ah kon da ngaa bëggoon collectif bi dem palais. non loolu mooy yoon soo ni ku sol mbubu mag jàpp la su ma solee mbubb ñu jàpp ma boo may jàppale da ngay sol mbubb waaye doo toog ci rajo yeeg di wax li ma wax mooy li ma gëm la mooy ñi demoon palais ànd ak Macky Sall ne fa du yoon pale institution la en dehors la personne de Macky Sall institution la place de l'indépendance place de l'indépendance dañ koo tere woon ñu dem xeex ko man je la ma waxoon lay waxaat tey maa àndoon ak président Ablaye Wade arrêté Ousmane Ngom fii la ma fekk ma défendre ko les mêmes principes qui m'ont poussé à défendre boobu mhm. moo ma poussé waat tey te j'accepte ñeneen ku dem xeexi ma nangul la ko Guy Marius Sagna maa ngi wax ni mais mais arrêté Ousmane Ngom bi arrêté bi Macky Sall mii fi nekk da ko doon ŋàññi di wax ne arrêté Ousmane Ngom bi jaarul yoon waaw loolu mun na ko man nag li ma munul mooy tey ma nekk ci opposition défendre nekk ci pouvoir défendre ko mhm. nekk ci opposition génn ci je reste constant kon yow Moussa euh, d'accord nga ci li Macky Sall wax que ne ñi nga xam ne ñooy dem place de l'indépendance ak fi nga xamante ni mooy buntu palais ñooñu euh, marche pacifique yëkkatiwu leen. man li ma gëm mooy mën nañ marche fépp ci Sénégal pour yëgal lan mooy finalité marche mooy wane sa bopp. am na loo xam ni boo fa tolloo ci mbooloo. li gi li am si yow ak kii bi mosul dëñ mosul dëñ heure bu marche jamee ma jëm wuy ji xam nga lu ma dul def. Mhm. taxaw ci rajo yi di yuuxoo consort suñ ne nañ dem pale kenn du ma gis gis nga bu ñu la yow xam nga fekkee nga. Mhm. keroog ba ma ne damay dem euh, RTS. Mhm. kenn jiitu ma maa. mais Moussa yow jëloon nga fi ay avant élection yi nekkoon nga fi si ay kuréel mais boobu da doon yëngal nekk ci mbir yi nekk ci kanam mais léegi dañoo gis ne Moussa daal dafa mel ni dafa xaw a noyé. pas du tout xam nga dañ jógee ci élection présidentielle. Mhm. boo xam ne taxawaay bi opposition bi taxawee neexuma woon personnellement man. Ah bon ah oui je entièrement day am laaj taxaw seetlu. parce que jàppoon naa ni waroon naa gën a dëgër noonu jógee noonu rek ñu bàyyi noonu mu dem. ah élection yi ñu bàyyee Macky après. ànduma ci. parce que ñoom dañuy dafa jaarul yoon. su jaarul yoon da nga koy xeex. dangay wàcc taxaw. biñ ko ñoom nag paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. comme ñoom ju doon candidat ñoo mun a nangu loolu. ma ne xayrun def samay la bëj ñu nangu résultat bi ni waa ji falu na. da ngay taxaw seetlu parce que nag ñun Macky Sall dañoo galgal éliminer sama candidat le président Pape Diop. Mhm. ci ay parrainage ku am cinq députés. Mhm. nga ni mënul am parrainage xam nga loolu wax ju yàqu la fekk na ay candidat comme loolu na ma ne mais mais ngeen lànk bañ a dem bañ dem élection. wa ñu. lànk a dem. choix la woon. Mhm. waaye xam nga comité directeur. ñoo wañ loxo président Pape mais Moussa est-ce que xam nga ne tey par exemple yéen bi ñu leen imposé parrainage bi yéen su ngeen lànkoon ne du ngeen dem ci parrainage bi Macky Sall cund mënul dem élection. d'accord na. mais amul solidarité ci ci opposition bi amul benn yoon bu ñu waxtaanee dama ni keroog bi ñu leen éliminer sa ku ne daa jóg di dem uti di mottali ay consort dama d'accord ak yow c'est-à-dire bennoo gi opposition war a def. Mm-hmm. mu bokk moo amul dafa amul jeu sincère dans l'opposition nit ñi mën nañ ñëw bu leen tele yi wëree ñu waxtaan ci biir mais bu nu weetee da ci bëri jëwante man kay loolu dégg nga ma ko ma su ma cee jóg sama discours boobu ni tant que defuñu ab say fàtte suñuy jëmm. jiital Sénégal rek heure bu ñu jiitoog mag jàmmaloog Macky Sall mu def ñu bagage c'est parce que y a pas de sincérité dans l'opposition y a des ay nit ñuy naxante seen biir c'est une vérité. Euh, opposition bi ñuy wax ne ñoom euh, demuñu ci euh, li nga xamante ni maanaam mooy actualité euh, li nga xam mooy yokku courant geeg yooyu dañoo gis ne dañ cee noppi est-ce que yow loolu mooy sa lan mooy sa xalaat. non du noppi xam nga wax ju nekk ak wa ak wax ak ak palaasam daa am la tubaab di wax ni se taire est un art. parler devient un man ki ma mën a waxal mooy ki ma bokkal muy la président Pape Diop ba koy wax nee naa la campagne wax na ko lan lay li ñuy waxuloon Sénégal yi kii ñoo war a posé seen bopp terewul bañ ko bañ demee élection ñoo ëpp ñu ngi dem Macky Sall lañ dem votel et ñoo lànk gii ngay wax ñu ngi ci jóguñu ci démb bu dee ci benn place de la ca seen i naataango télévision président Pape Diop toog na fa waxaat lan la nit ñi bëgg en réalité waa mais bi ngeen waxee ci ma kii bi yàggut mais avant ngeen di def seen euh, secrétariat exécutif euh, national bi avant loolu toog nañ lu yàgg président Pape Diop kenn déggu ko. nit ku responsable su duggee ci mbir da koy évaluer su ci génnee Pape Diop dafa def deux ans di def tuuru Sénégal wër fu nekk wax ak nit ñi ñu dem ci élection mu am nu mu demee mu ànd ak ay nit doo taxaw seetlu jàngat li nga fa koy tegaat sa tànk ndax nag ñun dañuy jomb wax tey bu subaa ñu wax le contraire moo taxoon ñu jëloon tekk gi te kaaral gi du woon lenn mooy jàmbat. mais du découragé non ab murid du découragé yow. du mere si askan bi. ci la. Mm. ci la léeg-léeg nga nii nañ leen bàyyi mag Macky ñu xool mu xool nu ñuy defee ak ñoom comme ñoo ko wateel neen gis ndax artu woon lañ leen ne leen bu leen ci jublu waaye xam quand tu es engagé day conviction moo lay dugg doo mun toog. Mm-hmm. mais fale nga seetluwaat nan ngay jógaat làbbaliwaat sa fan parce que ki nu jàmmaar lool ku ko jàppee cuune. mënoo politique. Macky Sall waa la wax du cuune non du cuune non xam nga man mën naa bañ a farak yow waaye nangul la dëgg ndax cuune mooy koo xam ne day juum waaye heure bu ñu demee mu am galgal am fu mu ñu roof gañe ko de 2012 à nos jours du yëngu te kenn du yëngu waaw Moussa léegi euh, Macky Sall dafa am ñoo xamante ni moom la ñuy waxtaanee ci mbedd meeg garam yëpp di ne Macky Sall dañu gis ne ba mu fi toogee ba léegi maanaam lu ne teg na ko opposition bi te su koy waaj def dañuy wax ne du ko fi defee te da ko fi def te te du mujj fenn euh, loolu lan moo waral loolu waaw xëy na daa wóolu boppam dooleem mais daa fekk xëy na ñoragul xam nga am réew mu jóg takku. Mhm. président mënulu ko dara. te jàpp naa ni li liñ naan man mit baa ngi baa ngi bax. Mhm. parce que frustration yi ñooy daje. ba pare beneen bi nag Macky Sall du président Ablaye Wade le 23 juin soo amee c'est parce que Ablaye waat dafa démocrate woon ne ñii taxawee leen nii ñii taxawee nii mais Macky Sall amul taxaw ay lacrymogène la lay jol jël ay police am doo am foo taxaw. rapport de force la lay jaay doole ji. ngeen daw lay doole ji du question de daw. Mm-hmm. waaye ku la ëpp doole. Mm-hmm. bu dalee sa kaw. bu la mm-hmm. neexee bu la neexul da nga da nga arrière. fa lay teg nit ñi. da nañ est-ce que du Macky Sall nag euh, dafa xam seen i feem ndax yéen nekkoon démb ak bërki démb. bon xam i feem ñàkkul. parce que nit koo nekkal dana xam say jikko. waaw ah, te dafa yàgg ak yéen aussi. mais je l'assume. entièrement man bokkuma ci ñi naan. ànd xaw ko woon wala d'accord ñun ñoo màggee ci keppaaru. ku mag kóor gu mag goog di ab Ablaye Wade mhm. mais en réalité li muy def du démocratie bu defoon démocratie rek léegi rapport de force yi. ne neex ngeen a maîtriser nag Moussa yéen opposition bi Macky Sall day jékki-jékki rek paan ci seen kaw. waaw waaw waaw mais xam nga bés dina jot dana paan du fa fekk dara ndax ñu ko ëppoon doole feneen ci yeneen foogoon nañ ko gis nga nguur dama bokk ñi gëm ni yàllaa koy joxe buy jeex la koy dindi sa doo ko xam Tunisie bi sa révolution ci affaire jaaykat la am na ñoo xam ne nii ci mburu la révolution jógee. gàpp jàpp naa ni pet euh, euh, prix électricité bi mooy déclencheur bi nit ñaa ngi dem nag. Mhm. ndànk-ndànk di sensibiliser di conscientiser après day dem ba mu nekk clameur populaire. su boobaa moom ma ci Sall du ci mun dara. d'accord mais Moussa dañu la gis yow nga nekkoon benn jeune boo xamante ni mouvement yi mel nii yëpp da doon bokk si ñi nga xamante ni ñoo koy jiite ak ñi nga xam ne ñooy teg ay stratégie ci xeex beeg yooyu nekk ci micro yi di wax ak a bàyyi mais bii dégguñu la si. déet neel ci mosumaa jóg. te nag nekkatuma jeune bàyyi leen di ñu confiner ci position wu jeune jeune trente cinq ans lay yem. mais man, Moussa Moussa ni nga doon engagé woo ñu gis la nga. tey laa gën a engagé wu. amul manifestant c'est que da ngay may place aussi xale yi dama daan wax ci sama turu parti en tant que jeune. di wax ci turu parti en tant que porte parole léegi am na ay jeunes yu ñëw ñoom Pathé Mbengue ngi fi ñoom lay maanee ngi fi ci sama parte da nga leen di may mais amul benn combat laay wax. Mhm. buy am dooma ci seen. fekk rek ni ni léeg ñoo lànk ni ñuy doxalee am na ci yoo xam ne ànduma ci ak ñoom da nga ciy xaw a màndu parce que dégg naa ñenn ci ñoom du ñëpp ñuy mel na ñuy xaw a seppi politique yi te nag nañ dem ba xool fi wonent di ba ñu bën parce que bari na ci ñoom itam ñoo xam ni positionnement la ñu wut bu élection locale yi ñooy di nga xam ne li may wax dëgg la ba tax na looy dugg le principe amul benn combat bu nit ñi di woote ci démocratie ma fekkee ko tal ñëwuma ci. d' accord mais Moussa est ce que président Pape Diop euh, respecté na askan wi nga xam ne ñoo ko voté ba mu am juróomi député ak ñi nga xamante ni tey euh, ne woon nañ ko yàlla dogal euh, jàllul ndax sànq dama laa laaj ma ne la est ce que du noppi gi est ce du mere Sénégal yi ci la nga ne ma nga ne ma ci la est ce que warutoon a xool ci ñu ko voteel ba mu am cinq député est ce que warutoon a xool ci ñett nit ñi nga xamante ne ñoo ko parrainé ba askan bi bu ñu dund jafe-jafe mu génn wax ci. déet wax neex na lool waaye dégg-dégg ko daax dama ne la. bokk nañ ci opposition bi ñu ni Thiel Pape Diop mosta noppee wax seulement nag taalibi sëñ Abdou xaadar boobu daa niiru sëriñam du waxantu du waxtu day wax te wax day am cëslaay day am waxtu day am yilla moo tax balaa muy wax dana xool la muy wax ndax boobu ba léegi sant yàlla dégg goo mu wax ñu ne accam mais dafa yeex wax si yokk courant gi Moussa yàgg na cee wax danaa la avant ñu koy avant ñu koy yokk waxoon na ko ca campagne ba mais bi ñu ko yokkee ba pare moom nag du nitu buzz parce que li amoon solo mooy nga wax ko sénégalais yi ñu dégg ko bu ñëpp gis nga fu rëpp rëpp am doo fa seen Papa Diop léppam daa dal te tey lu muy def da koy teg ci temps et il est engagé nee naa la bokkul ak gaa ñu bëgg daraja wala bëgg alal. d' accord mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM 97 point cinq seen émission pencum réew mi tey ñu dalal euh, Moussa Diakhaté nekk porte parole euh, parti bi di convergence euh, bokk gis-gis te président Pape Diop jiite ko mais Moussa Pape Diop. tey euh, bokkoon na ci coalition euh, Idy 2019 est-ce que bu démb doon tey di ngeen ci bokk. bu démb doon tey ñu dem élection. Hmm. ñu éliminer Pape Diop. éliminer le PDS. mu desoon ñi desoon ci candidat yi. jàpp na ñi ci desoon Idrissa c'est un libéral moo ci ëppoon expérience. Hmm. te ñoo bokkoon démb keppaar sunu baay Ablaye Wade bu demb doon tey le même choix serait encore refait ndax principe lañ demee. ci ña fa nekkoon jàppoon nañu moo ci am ëpp expérience ci élection te ku ñu xam la woon ñu bokk. coalition boobu ba tey yéen a ngi ci. wala déedéet coalition présidentielle la. dañ doon jàppale candidat. Mhm. pare bi ñu paree la ci pare. bokk gis-gis reprend son autonomie. seet ñi mën a àndal dégg nga barki démb la président Pape Diop ni la. Euh, du jóg ci baayam ji Ablaye Wade ñu ngi waxtaan a ñoom parce que li nit ñi di utile ñun PDS moo doon suñu allié naturel. c'est parce que PDS présidentiel yi dafa amul candidat législatif. Mhm. ñun ak PDS ñoo ànd. bokk benn liste président Pape Diop mii moo proposé woon Ablaye Wade tête de liste nit ñi dañ koy fàtte ñu dem présidentielle gëmoon naa ni man su doon PDS moo am candidat. ngeen ànd ak PDS. Pape Diop ñu éliminé ko. Mhm. la logique aurait aimé que ñi ñu bokkoon coalition ñu ànd ak moom su doon dañu PDS Pape Diop dafa jàlloon. Mhm. PDS amul candidat. man am naa yaqin ni su boobaa Ablaye Wade ak njabootam danañ jàppale président mais mais noppi gi ngeen noppi yéen kuje gi rawatina yéen ñi nga xamante ni tey yéen a nekkoon ci coalition bi te mujjantal gi sax dégg naa ñu ne ñoom euh, Madické ak ñoom ñoo ngi gisante mais Idi noppi gi mu noppeeg Pape Diop est-ce que du lu ngeen waxtaane ah man xam nga mënu ma wax ci président sa Seck donte ku ma am respect ci moom la bu Pape Diop laa mën a wax waaye bëgg naa ñu bàyyi tuuti ci président Idrissa ci wàllu communication politique jàpp ma ni am na kuy dox ci réew mi su mooy Ablaye Wade ku gën a xam ndax ab vécu dund na ko ba muy gone ca la nekk ba léegi te bokk jàpp naa ne ci ñi ëpp yi lay wax fasax wax ca la bokk su waxu rek am na fu mu ko teg man nag damay déglu ba mu wax comme bokk ma ci partem damay yem ca la waa partem wax rek ba keroog muy wax ma jàppee ko ay waxam président Pape Diop nag ne naa la mosul jóg di ci wax. waaw mais Pape Diop damaa dégg mu ne moom dilut Idi tamit dilut te Idi dañ koy tuumaal dafay dil ak Macky Sall waa loolu waa kër Idrissa ñoo ci mun tontu li ma mën a tontu mooy li président Pape Diop ci lim ma wax man mooy doxul ci diil xamul diil jéemul diil. te du diil te diil. loolu laa jàpp ci moom loolu laa gëm itam ndax lum ma mos a wax loolu la mos a jëfee man kon loolu laay mën a jàpp leneen lu keneen def nag parce que tey rajo la. Mm-hmm. li ma fi wax tey fii ak fukki dañ koy tëj jamono jii may wax mhm. sama yaay nga toog di ma déglu mhm. ma koy nuyu au passage ndaw saandeen aram faxa mhm. di nuyu sama soxna ak samay doom ñu ngi may déglu kon bëgg wala farak nit lu tax mu wax lu ma wóorul damay jàpp ci liñ ma wax ba keroog may gis le contraire parce que politique itam jaamu yàlla da cee am solo. mais Moussa euh, Moussa Pape euh, Pape Diop est-ce que président Pape Diop euh, maanaam ambition bi mu amoon politiquement pour dem ba jiite Sénégal est-ce que maa ngi si Pape Diop ba tey. Pape Diop ab murit la Pape ku jàngee ci keppaaru Ablaye Wade la Pape Diop dafa ñëw ci politique pour jaamu ci yàlla dafa ñëw ci politique pour jàppale askanam lépp lu ñuy tufli ci nopp doom bu juddoo sama xaali xii na yàlla may na ko président Pape Diop te ci Sénégal gi ko amee mosul tukki bitim réew wuti ko mu ni nag kon duy am li mu am yépp toog di ko seetaane danaa fexe xàll wa Ablaye Wade xàlloon ma fexe cee aw xalaatal Sénégal sukkandiku ci yoon wi ñu sëriñ Touba nampatal ma liggéeyal sama réew kon xam nga kooku mënul décourager fekk yàlla nga koy may bakkan muy tane di wér Pape Diop li muy def mooy lu yokk askanam xaaru ko nag ci jot nguur u koo jot mu ngi koy tàmbale ci wërsëg yu ko yàlla may mu ci dimbale ay doomi aadama di xaal yoon di wane. d'accord lu waay xamadi xamadi. Uh-huh. xam nga ni sama waaj jàmbaar. waaw mais Pape Diop tamit euh, tey euh, jàmbaar la moom euh, yow yaa ko mën a wax ndax tey dañu gis ne dafa nekkoon maire dakaar ñu jàpp ne capitalu Sénégal boo nekkee euh, maire capital ndax capital du caaxaan au moins sax boo demoon bu jógee ci mairie bi war naa am benn ndëgër laay boo xam ne di ko am ci capital bi mais gis nañ ne Pape Diop euh, doole bi nga xamante ni tey waroon na ko mën a am ci biir capital bi bien vrai que sax nekkatul maire doole jooju ñu bari gis nañ ne amu ko. waaw xaw naa ci d'accord ak yow tuuti mais nit ñi nit ñi xam nga la ñu reere woon démb fàtte nañ ko su fekkoon ni Pape Diop fay nañ ko cëram ci lim def. defal doomu aadama ci dakaar tey su wootee kenn du xam mais xalifa mi nekkoon maire te nekkatu ko tey téeméer yu mu amoon juróom-benn ya dem nañ seen yoon parce que Sénégal moo tëddee noonu beneen bi aussi effectivement président Pape Diop dafa gëj a biir dakaar bi mu amee ndombol tànk président parti mhm. daa mel ni àll bi la gën a fonk ko ci biir Dakar ñun dañ ko koy ŋàññee saasu ne jàpp naa ne jot na occasion la moo wax ko président Pape Diop kaay fii ci biir Ndakaaru ñu ànd dox yeewaat li doon nelaw ndax kat bu dee yëg nit ñi yëg nañ ko mhm. bu dee defal defal na askan wi waaye daa am loo xam ne buñ ci tolloo itam da ngay sol ànd ak ña nga àndal donte mhm. c'est le national ma ni ko département Dakar namm nañ ko ndax Pape muy local mhm. muy présidentiel campagneul benn yoon Dakar loolu itam day tax la nga yoroon xawoon nagam mais Pape Diop mu jóg rek seetiwaat ay nitam ci biir Ndakaaru ànd ak ñoom gisuma ko ku ci euh, euh, euh, mën nañu wax ne passé na capital bi Ndakaaru mais est ce que tey bu amoon benn coordonnateur départemental boo xamante ne bu am dayoo la est ce que liggéey bi mu fa war a liggéey moo xam dem ci commune yi waxtaan ak askan bi est ce que ku tol noonu am na ku mën a gérer loolu coordonnateur départemental au niveau de Dakar da nga cee da nga ñu cee xeeb comme kii da nga ñu cee xeeb da ma cee xeeb lan mooy coordonnateur du mooy ki coordonné waaw jamono jii may wax ambition bu am ci parti bi ñu ngi koy liggéey pour àgg fa. mais est-ce que yéen dem ci communes yi. di waxtaan waa communes mais amoon na. mais des na. non dafa des xam nga dëgg yàllaa ko moom biñ génnee local présidentiel yi ba pare tekkaaral googu amoon na suñu biir parti c'est une vérité communes yi nit ñi taxaw parce que nit ñi jaaxle nañ ñenn ñi ci am nañ ay frustration ci coalition yi ni mu demee woon il fallait nga bàyyi leen ba ñu miis génne lool ñu jóg waaye ma ciy profité di remercier les femmes de Dakar. ndox mosu ñoo tay di ñoom sax dañoo def ba créer seen lekketu bopp lekket de bokk gis-gis di natt di dem seeti seen i nit Adja Ndeye jiite leen ñu ngi def seen parti bi dafa mel ni dafa pëccëxoo kon non du pëccëxoo de cest à am xam nga politique day am pëccëxoo mooy euh, Pape Diop euh, ni mu war a politique ko Dakar non Pape Diop national la waaw moom danañu Moussa mais gunge leen léeg-léeg léeg-léeg waaw ñu ngi ko loolu ñu ngi koy laaj ba léegi parce que tey lii su ma ñëwee fii weddi lii nga wax su ma demee ci waa Dakar ñu xëcc samay nopp Pape Diop gëj na recevoir ñun département Dakar ah bon mu ngi ci àll bi war taw gëj na ñëw représenter ñun département. te demandé ngeen ko ba sonn. lii lii man sa am na ñu ma ci mere ne ma comment tu peux être le porte-parole du président et le porte-parole du parti boobu léegi président du toog Dakar boobu nee nañu yéen waa Dakar yéenay organisé wu. ci lañ nekk nag ñu ngi instant yi di monter les cellules ñu ngi instant yi di monter les commune bureaux communal yi pour aller refaire le département parce que am na lu des ci liggéey bi li ñu waroon liggéey au plan département liggéey ñu ko. tàmbali nañ commune yaa ngi liggéey buñ ci pare ba yooyu yëpp pare nag man di lay mën a seeti ndax bu ñëwee plateau xam ni Moussa fa ne su ñëwee euh, Yoff xam ni Yankoba fa ne bu demee feneen pa Grand Dakar Pathé fa ne bu demee feneen ak feneen xam ña fa ne. comme yow da nga jàpp ne président Pape Diop Ndakaaru fayuñu ko fayuñu naar bi xoromam. déedéet Pape Diop nag liggéey na ci Ndakaar loo xam ne ni yaakaar naa ni su ne woon soxla naa nit ñi dégg ko am na nit ñu war a taxawee mais politique nag moo tëddee noonu waxuma la président Pape Diop sax waaye président Ablaye Wade li mu def ci réew mi te gis nga su ñëwee ña gëm si am luy daw ñoo kon ne ba léegi te juróom yoo jël ci réew mi nag. Mhm. ñeent yi yëg nañ li président. d'accord mais bokk gis-gis euh, est-ce que tamit Moussa euh, au niveau national euh, ci département yi est que am na département boo xamante ni président conseil départemental ba ci bokk gis-gis la bokk wala am na ay communes yu nekk ci ci Sénégal yoo xamante ni tey ka jiite commune ba ci bokk gis-gis la bokk loolu est-ce que am na. da nga fàtte élection législative yi ñu locale yi ñu jóge waaw ah. am nañ lu ëppoon ñaar fokki nangam ak mairie. li xew ci biir mooy président Macky Sall ak i nguuram ari ñëwal rek mbaa yat bi dal ñu ci bari en tant que maire nous ont quitté. day naa mel <laughs> ni Macky Sall nangu seen maire yi. donc lu ci bari <laughs> mais li am solo mooy baas ba fa faloon. mu nga fa jógu fa. mairu Paal ñun la nekkaloon maire Jawle ñun la nekkaloon maire Mbow Mboor Mbu euh, Mbaaw ñun la nekkaloon mairie Wakaam ñun la nekkaloon on vingt mairies c' est parce que one est ancré président Pape Diop jikko ji ni mu mel mooy day liggéey ba pare nit ñi door a gis nous sommes dans les quarante cinq départements du Sénégal instant yi dama la on est en train d' ci cinq cent cinquante sept communes yi fu ne mu am fa bureau communal ñu réorganiser waat parce que li jafe du dem làmb ja li jafe du supporter xam nga li jafe. Mhm. am mbër mu mën a daan. Mhm. mbër moo xam ne ci wàllu jikko Sénégal dañ ko nangul mbër moo xam ne ci wàllu liggéey Sénégal dinañ ko nangul mbër moo xam ne ci wàllu relation ndax nag foo jàngee ñu ne keppaar Ablaye loo fa def nga ni fukki atak ñaari mhm. maa nekkoon dofeem mhm. kooku bu dee elew am na lu mu jàng mhm. kooku nag boo koy waajal da ngay retourner waat defar waat ci loolu lañ nekk euh, jërëjëf euh, Moussa Diakhaté porte-parole euh, bokk gis-gis léegi ñu ñëw ci dialogue national bi yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi léegi dialogue national bi yéen bokk gis-gis bokk ngeen ci wala bokk leen ci xam nga dialogue national bi commission communication commission politique bi su ma juumulee su mooyee le parti démocratique sénégalais tous les partis sont représentés. Mm-hmm. mais maanaam si ngeen bokk. waaw ci lañ bokk. Mm-hmm. te loolu laa gëm. Mm-hmm. xam nga li ma gëm man. en tout cas li ma jàng nàmp ko ci Pape Diop ak président Ablaye Wade. mooy chaise vide man gëwuma ko. da ngay am fulaak fayda lu ñu woote ci Sénégal nga toog boo d'accordul ne d'accorduma bu nit ñi di combine nga génn baleen fa man loolu laa gëm. saa yoo bàyyee chaise vide nit ki may nga ko occasion mu def la ko neex la preuve mhm. su ñu bàyyiwul xel lool lool lool lool tey le premier février. Mhm. en temps normal selon la loi règlement la loi électorale article trente neuf révision exceptionnelle tey la waroon tàmbali perm de manière permanente. à moins que ñu jàpp datu élection def euh, ñu def décret convoquer le collège électoral mais ba tey kenn xamul kañ la pour dire que ni am na galgal bu loo fu ci local ba léegi waxaguñ ko diil la maa ngi alerter encore les partis politiques tey jii ci yoon waroon na fekk président def décret bi bi bi bi convoquer le collège électoral su fekkee élection day am. Mhm. élection locale élection locale day am. Mhm. su fekkee maanaam yéen daal yéen daal xamul leen élection dina am wala du am lépp daal makkee ko xam moom. moom xam lépp foofu itam nag. Uh-huh. opposition war nañ cee gën a farlu. Mhm. ndax nag xeex booy dem da ngay xam àpp ba. da ngay xam àpp ba kanam. waaw def nañu galgal nañu. ba repousser élection yi wala te xamuñu beneen date foofu itam waaw damay jàpp ni da leen a nax naxe la mën naa juum ndax nag sama xam-xam ci wàll élection xëy na kayewul waaye daal dama jàpp ni man bés daal boo ko toxalee da joxe bés dégg naa Aly Ngouille Ndiaye di jolof-jolof bu muus tam la ma wax assemblée moom dalu sama xel dana àpp gi mooy deux mille vingt et un bàyyi ko ci waaw ngeen bàyyi ko ci ndax leen pexe effectivement parce que amuñu pexe et ba pare gars yi ñu ngi woon ci dialogue ba ba pare xam nga soo yebalee nit mhm. da nga koy wóolu ña fa nekk ñeneen am nañ consensus ba ànd ci. Mhm. waaye man jàpp naa ni bu ñu doon def waroon nañ ñi dañ koy puus naam waaye nañ jàpp bërs. Eh, mais est-ce que Macky dialogue bi yëpp yëpp yëpp est-ce que randal élection yi du mooy li ko si gënoon a yitteel. gis nga Macky Sall du ma ko miimal dara ci stratégie politique lu mu def rek. Hmm. am na lu laal laal fu ci suuf. saa yu nekk nag ba mu ñu andil parrainage bi yëpp am na lu mu doon waaj pour éliminer. mais dialogue national bi est-ce lu jàpp nga ne dialogue euh, politique bi ne moo fay tukkee ci waxtaan bi. ak yow ni nga wax ci Macky Sall xam nga Macky Sall nag yéen yéen a koy wax yéen a lay wax ne waxi Macky Sall jërul doom door sa doom ndax day wax lii def lee yéen a ko wax euh, est-ce que jàpp nga ne xam nga Macky nee na la fay tukkee ci waxtaan bi dana ko jëfee mhm. est-ce que yow jàpp nga ne très sincèrement Moussa la fay tukkee Macky dina ko jëfee waaw honnêtement jàpp naa ni la fay tukkee dana ko jëfee ndax kii jiite dialogue bi honnêtement Famara Ibrahima Sagna mhm. jàpp naa ni li ko dese ci àddinaam du dugg ci yu fi Euh, euh, euh, Amadou Makhtar Mbow bi ñu fi def assises moom moo ko jiite woon ñu bari amoon na ci yaakaar te gis nga fa mujje waaw mais xam nga assisi ay nitam rek li ci ëpp ñoo ca newoon. mais ay ay déggoo moo ci amoon ay waxtaan. mais bi ku jéggi. Mhm. ñoom ñoo ci ñëw. Mhm. muy je crois une première quand même su ma juumulee. Mhm. ci woote waxtaan bu mel nii. je crois que bu dul une première au Sénégal itam xaw na jege ni ni mel. ba jàpp naa ni la fay tukkee. pour man Macky pare na. buntu génn lay wut man loolu laa jàpp ni mandaam bu mujj lay def buntu génn lay wut jàpp naa ni du dugg ci tuuxi duuna yooyu ba pare itam ñun ñooy am fulla parce que comme def nañ say am njort ni war naa mën a ne donte gëmuñu nag nelawuñu de ñu ngi ne xajju di ko xool hmm. ndax ku mën a politique la ku hmm. mën a am ay stratégie la li ci hmm. des mooy comment nous battre nous pour que la jaloog laa mën a jur njariñ Sénégal en réalité c'est la finalité lan ngay xaar si dialogue bi li ñuy li ma ciy xaar mooy li ci ëpp. yan ponk loo si xaar ponk yan. en tout cas jàpp naa ni yeneen yëpp amoon na cadre bu ñu koy defee man. sur le plan ma maanaam tey par exemple tey dañu wax ne élection locale dañuy bëgg euh, liste bi ñu xam ne kii. moom mooy nekk maire bi mooy maire. lu jëm ci euh, caution bi ak parrainage bi tamit doon nañu wax ne euh, bu bu bëgguñu mu bokk ci. li ci ëpp solo mooy man li ma jàpp mooy le fichier électoral le processus électoral na carte gi leer mooy li ëpp solo yeneen yi ci des yëpp. au dialogue xaw ma lan de ki mu ngi fi conseil économique et social mu nga fa avec des technicien avérés li ma jàppoon man mooy foofu mooy cadre dialogue yeneen yi dialogue politique bi mooy am code maanaam buñ ci génnee Sénégal bu bees juddu ci wàllu élection ba du am jiixi jaax mais Moussa nag yéen jaaxal ngeen nag euh, Sénégal yu bëree bëri yéen euh, Pape Diop ak euh, président Idriss Seck ñëpp yéen li ngeen ŋàññi Macky Sall lépp ci élection yi ak ginnaaw élection yi ngeen ne ko doo président du ñu def recours da ngaa sàcc lu ne ngeen tuumaal ko Macky Sall mu jekk-jekk woo leen yéen ñëpp ngeen dem ci pale bi toog chaque jour bu woo leen dialogue yéen daal mel ni dafa jor ab commande am di leen def nii déet xam nga xeex ñaari façon am mhm. da ngay am doole mu ne la tuy nga ni ko tuy def rapport de force. Mhm. su kenn naxul kenn te wax rek te yàlla tax de 2012 à nos jours nous n'avons jamais réussi à avoir le rapport de force avec Macky Sall. day nëpp doole non c'est une vérité xam nga sooy politique da ngay demee xel. Mhm. président Abdoulaye daf nu jàngal nii. Mhm. léeg-léeg da ngay naxante di am benn di am ñaar ba am li nga bëgg. on est dans cette là stratégique ba pare lu dialogue bee ñuy def au plan politique mais boo ci demulee dooni lii baaxul ba pare toog croiser les bras. li am solo mooy pour ñu juger ndax dialogue bi jur na lu baaxam jur lu baax da ngay rafet njortu xaar résultat yi man bu fekkee ni génn nañ ci dialogue politique bi. Mhm. réglé wuñ problème mu fichier bi. Mhm. réglé wuñ problème mu defuñu audit fichier bi defuñu auditu système électoral bi. Mhm. réglé wuñ problème falinu maire yi ak compétence yi. su boobaa lajj nañ. d'accord euh, te bu boobaa am ngeen si part de responsabilité quand mais effectivement. ok engagé wu mooy am respons am responsabilité mooy keroog bi ñu jógee. Mhm. engagé wu ci parti la ñu liggéeyal sunu askan. mais Moussa euh, Macky Sall comme ni nga ko waxee sànq 2012 ba léegi te ñun dañoo gis ne dëkk bi euh, am nay kàngam ay président Idriss Seck président Pape Diop a ngi fi Ablaye Wade a ngi fi Khalifa Sall fi mais ñooñu ñëpp dañu gis ne Macky Sall euh, lu muy lijjanti da koy lijjanti ñoom ñëpp dafa mel ni lu lu leen lu leen noot. te ma ngi contrôlé wu boppam di doxal di doxal te ñooñu maanaam mënuñu si dara est-ce que tamit loolu du tax euh, askan bi joxaat ko réew mi ndax euh, ñàkk seen ñàkk taxawaay. ñun taxaw bu ne taxaw nañ ko dégg nga fii sa rajo bii lañ ma woowoon ba ñu def marché ba mu dooree grenade ñoom pàpp Diop ak ñii ñu hospitalisé ñii ñu yóbbu. gis nga les politiques c' est des catalyseurs. mais président day dëgër nag. président day dëgër day am fit moo tax dëgër am fit mënut a weesu Idrissa Seck ñaata lañ ko fi jàpp. ñaata lañ jàpp Decroix ñaata lañ jàpp. le problème Macky ni muy doxee laa wax loolu Sénégal yi bari dañ ko seefan ci dëgër laay bi taxaw ku génn mu dóor la lacrymogène nga dawaat dellu muy doxal réew mi wax ji bare ji yéen ay wax mais moom du wax. waaw xam nga xam nga lu ki war a àtte xam nga mooy kan. toog di seetaan. parce que buy métti ci ñëpp lay métti xam nga tey yaa ngi wax mbiru yokkute yi ñëpp ko yëgandoo politique yi li ñu waroon def jàpp naa ne lu ci bëri def nañ ko donte am na lu des dama d'accord ak yow fenn mhm. ndax Macky Sall en tant que opposant mhm. xadar gam amoon jàpp naa ne suñu gars yi war nañoo yokk làbbali ba mu yor mer gàddoom ba uh-huh. lu gars yi wax mu fel mhm. suñu gars yi war nañ toll à ce niveau là par rapport ak moom rapport de force non c'est vrai c'est vrai par moment am na foo xam ne effectivement leader yi des na des na des na xadar gi ci war des na mais li leen di may xadar woo xam nga mooy lan suñ gesoo gis askan wu taxaw waaye booy dem ñun la du nga nekk ca la nga nekk bëgg man ma bàyyi ma ci su yàggee su ma defee gisuma la ki yow mi tax may xeexal su ma la gisul sama wet mais naa ni découragement mais est tey par exemple tey Macky Sall bu posé woon euh, maanaam beneen candidat ci troisième mandat est-ce que jàppoo ne Sénégal yi mën nañ ko ko jox man jàpp ma ne dina ko posé lu tax mais dafa pare ñaari man daal la war a def mais su laajoon beneen ma ni bu ñu dugg ci débat boobu xam nga man fi may tàmbalee non xamul tax ñu si dugg ñun dañoo dégg ay ay ñoo xamante ni tey seen xel dafa màcc jëm ci mbirum constitution mbirum foofu nga daanoo nag mbir mi du mbirum constitution mbirum peuple la waaye yow nee nga peuple bi dañuy nelaw waa mais su boobaa mu def dix bu la ci kenn nax mbir mi du ay constitution consort ab peuple daal lu mu nangu ñu teg ko dagan na waa xam nga lu tax dama la wax ne la Abdoulaye Wade 2012 euh, dañu wax ne amul sañ-sañ def ñetteelu mandat Euh, te ñëpp bu doon wax ne doom ji moo fi nekk diaboliser ko ak réew mi ñu ne Ablaye Wade màggan na te teewul Ablaye Wade bi mu demee am na 36 pour cent Macky Sall nag non seulement euh, ndaw la ba pare tamit ni mu nootee tey euh, société civile bi noot ko opposition bi noot ko askan bi kooku jàpp naa ne 36 yi Ablaye Wade am waroon na ko mën a jiitu. ndax Ablaye Wade li ko li ko xañoon kon 36 pour cent du caaxaan diabolisé nañ ko euh, lu jëm ci mbiru doom ji ba pare Ablaye Wade dafa màggat ba pare wurta def ñetteelu mandat ñett yooyu yëpp la Ablaye Wade boole Macky Sall nag benn lañ ko si wax mooy euh, wurta def ñetteelu mandat est-ce que jàppoo ne boobaa sénégalais mën nañ ko fal xam nga sénégalais li ñu bëgg mooy am luñ nangu ñu teg leen ko ñu tegoo ko beneen bi nga fàtte ci Ablaye Wade mooy li tax mu ñàkk Ablaye dañ complot la dégg nga fi ay nit yu ne dañ wuti xaalis bitim réew pour daaneel Ablaye Wade te teewul am na 36 pour cent moom laa lay wax ni bu complot boobu amul est-ce que Macky mënul gagner waaw mais xam nga bu dugg ci débat boobu lay ba ñu dugal ci bopp ni ñi Macky Sall pare na xam nga lan la ñuy war a wax ñun opposition lan la ñuy proposer sénégal yi parce que mbir mi nag dugg jeu de chaise jógal ma toog mhm. fekk Sénégal présidence nii la bindoo moo xam Abdou Khadre Seck lay tudd xam moo xam Moussa Diakhaté lay tudd on est dans des risques ndax dañoo jox doole ju bari président am na yu bari ñu war a soppeeku ci ñi bëgg a remplacer Sall lan la nit ñi proposer lu dal xelu nit ñi les gens doivent travailler sur des programmes alternatifs euh, euh Moussa Diakhaté Moussa yaay porte-parole euh, bokk gis-gis léegi tey Moussa est-ce que yow Pape Diop yéen a ngi taxaw di waxtaan ci benn projet bu ngeen proposé Sénégalais yi wala seen xel nekkatul ci jiite réew mais ci la dox Pape Diop mosul jóg mais est projet bi yéen a ngi ci non ci lay dox xam nga ñun dañu du learning by doing maanaam lu ñu nam rek dañ koy expérimenter ci loo ma laaj nag ma wax la mais est-ce que est-ce nii tey yen yéen a ngi def seen projet bu doon tey courant la éducation la wala environnement la wala lu man di doon ñun dañ koo def ba pare di ko partage mu tudd ëttu gis-gis lu luñ ci xalaat ba am ci vision mhm. orientation mhm. dañuy woo kàngam yi ci mën mhm. ñu liggéey ci Pape Diop ci programme lay wax dégg nga ko bi mu fi keroog ba muy lancé Pape Diop du waxantu bu la jàppalee mbay mi nga ne mbay la xam su la jàppalee pêche bi nga ne pêche la xam parce que lu luñ ciy def rek dañ koy gëstu. am fu mais Moussa Ba Pape Diop tey euh, jàppul ne réew pêche euh, napp ak euh, mbay moo ko mën a doxal. kese mooy li ci jiitu. mooy base bi mooy li ci jiitu am réew mu développé. waaw agriculture lam am ca muy mooy mooy mooy lay cëslaay gi. Uh-huh. su ko defee les services ak yooyu door a ñëw. fekk ñun li ñuy dundee. Mm-hmm. duñ ko bay. Mm-hmm. di ko jéggaani. Mm-hmm. dana yéex ñu génn. d'accord Moussa ñu ñëw ci bokk gis-gis am ngeen ay cadre mag a mag. kan moo jiite cadre yi. Fallou Diop. Mhm. di ingénieur en télécom. est ce que yéen nga daje est ce que yéen nga dajee cadre yi. kañ ngeen gëj a dajee. Euh, réunion cadre. waaw gëj naa am bu dee yàlla dëgg la bëgg. gëj naa am gëj naa am jeunes yi. jeunes yi ñu ngi daje. ba bi mujj je crois barki démb la. Pate Mbeng moo leen jiite. Uh-huh. nekk responsable grand ñu ngi daje. les femmes les femmes gëj na ñoo daje donte am nañ présidente. bu tudd Yayman Albis. Uh-huh. nekk pré vice présidente à l' assemblée nationale. noppalu la wala découragé la. non du noppaleku de sa bopp la. waajalaat boo xam ni. ñëw ga day du gaawul mhm. da ngay waajal sa bopp mais gis naa ne yéen euh, seen cadre yi est-ce que tey liggéey bi taxawaay bi ñu waroon a taxaw xam nga cadre mooy parti en ah. général cadre yi seen taxawaay bu amoon est-ce que li li war a dox lépp euh, seen bu doon dox est-ce que parti bi paasewul fii ah, waaw est du ak yaafus amul ci ñoom non du ci cadre yi xam nga parti opposition mhm. jàmmarloo nguur 2012 mhm. ba léegi yombul boo amul ngëm-ngëm rek dem te fukk yow gis ñu yëngu ci politique juróom yu bëgg ama yóbbaale situation la moo leen di anti ñi gëm dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko laajee président Abdoulaye Wade mu wax la ko boo ko laajee président Macky Sall muy wax la ko boo ko laajee ku mos a falu soo nekkee ci yoon yu bëri xaaxaam jàmbaari fakk te di rek lay ànd ak yow soo faloo nag yi wàllu yaan du yomb du gaaw un parti d'opposition et parti yëpp sa la war a interpeller hmm. parce que parti ni muy doxee ci Sénégal hmm. war nañ def taxaw seetlu hmm. bari na ci ñun yuy woote démocratie boo yëlee ba ci biir suñu biir Mhm. démocratie bu des na. mais est-ce que bari. Uh-huh. parce que lii dama koy wax pour ma génération. bari na ci ñuy wax ni. Mhm. limitation des mandats. Mhm. mais dans les partis aussi foog ñuy respirer. démocratiquement di permettre ndaw ñi di ñëw ñeneen di ñëw. pour diir que ni problème mu politique. dafa am ci réew mi ci parti ni ñu koy tëggee jàpp naa ni fi àddina toll. ak parti ni ñu koy tëggee parti dafa xaw a arde boo ci gis nag bu bees baag bu màgget baa ci yam soo ci jëlee ko jiite ak ñettee ca wër dina jafe su moyee parti yu mag a mag yi nga génn fa juróom ya fa nekk y une hypertrophie ci ki nga xam ni mooy jiite parti war a ñëw tëggaat parti ba rapport horizontaux yi gën a ëpp doole. rapport verticaux yi mais seen parti bi bu amee jafe-jafe xaalis est-ce que ni mu war a doxee correctement dina ko doxee. su amee jafe-jafe xaalis. waaw muy sunu parti ak beneen parti ci yem. mais seen parti est-ce que amul jafe-jafe xaalis. léeg-léeg ñu am ko. léeg ñu am ko mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi góorgóorlu. fan ngeen koy jëlee su ngeen koy dajalantu wala. waaw dañuy daj dajalantu. est-ce que ki nekk député député yi am na lu ñu war a génne wala dara. no ba léegi nag sunu parti moom député cotisé gul. pour pourtant yeneen parti day doxee noonu. ay xëy na waaye waaye dégg naa secrétariat bi passé. waaw ñaari député jóg nañ. waaw yëkkati lu takk jox ko ndaw ñi pour ñu def tournée. yàlla dëgg la bëgg. Mm-hmm. boobu ba léegi nag. Mm-hmm. Euh, ñii ñooy góorlu waaye li ci ëpp. Mm-hmm. jàmbaar jee koy def muy le président Pape Diop Pape Diop loolu mooy lii dëgg nag. d'accord léegi euh, Moussa euh, waxtu bi lekk tey mu jeex ñu ñëw nag ci euh, plateau Moussa plateau est-ce que am nga fa ndëgër laay yaak ka nga fay jàmmaar lool Alioune Ndoye mu nekk maire ba nekk ministre aussi. waaw mu nekk maire nekk. ministre dooleem gën a yokk def ñaari mandat dooleem gën a yokk di waajal troisième mandat. Ah. am un excellent profil en tant que cadre. ca fa muy mm-hmm. liggéeyee. Mm-hmm. mais li ma gëm rek mooy xam nga man defuma politique pour ndombol tànk. Mm-hmm. dama gëm ni au plateau. mais ci la waaw mooy aboutissement bi. su la ko nit ñi dénkee. Mhm. dooni forcé fay ma jiite leen. li ma gëm mooy ni jàpp naa ne am na nu ma gisee pour sama commune. Mhm. naa fexe tàggat ndaw ñi. Mhm. woo leen ci kaw loolu. ñu dem wuti ko. et je suis dans cette logique là man intérêt général la ma tax moom maire boo ko laajee dina la ko wax parce que am na benn cadre bu ñu fa def. di waxtaanee lu ñool plateau suñu wootee su ma amee jot damay ñu wuy si. 2014 nee naa j'étais candidat dem sama liste bopp def ma coalition pour wan xale yi ndaw ñi. ne bu ñu toog dénk seen avenir. gox yeeg mais mais boobu nag def ngay dëbbal dëbbal. fu ne euh, koccaatu nga fa. waaw eh, campagne boobu. waaw ba léegi. maa ngi nekk nekk baa nekkoon si jafe-jafe après. maa ngi fay ba léegi desal naa sama soxna ci natt bu mu teggoon lu ma ko fayoon bor ba léegi des na la ma koy fay des na mais encore une fois soo amee conviction da def ay sacrifice mais j'ai compris effectivement. Mhm. que ni conviction am na ci solo trop. mais am les moyens de ses ambitions. am na solo mais euh, euh, yow kon candidat nga ci élection locale bu dee ñëw na bu dee Macky Sall organisé ko ndax kenn xamul moom xam nga élection boo xamul kañ la. Mhm. ne mbër laa ca we mhm. ci cuune mënta weesu loolu mhm. beneen bi loo xam ne askan lay laaj man li ma gëm mooy mhm. ce que je rêve pour ma commune plateau muy am liste bu crédible ay conseils yoo xam ne dañ mën a porter le développement du plateau ndax Sénégal bu dee dakaar mooy bopp ba plateau mooy yuuru Sénégal kon comme mairie ba fa nekk ña fa nekk war a nekk conseil war nañu am taxawaay ak dayo joo xam ne danañu am vision boo xam ne dana sori lool d'accord man ci position boobu mais mais Moussa ñàkk nekk député doon déception si yow euh, mukk laa dina ndax jàpp naa ni boo dee karaw gu ñuul nga yor dara jomb la ci sa àddina bu amoon it mu gënoon neex waaye li ma gëm ni mooy ni koo xam ne ni yaa ngi ci yoon di dem da ngay dénk sa bopp sa borom ba pare nag ñuy taalibi Serigne Touba. mais ñu bari jàppoon nañ ne Pape Diop dina la jox poste bi. bu démissionné yi doo nekk. Euh, député lu lu jot rek yoom ndax su démissionné woon doo nekk député. maa yi waroon nekk député. waaye daf su démissionné woon. mais lu jot rek yomb. waaw non dama dama laaj. ndax effectivement bu démissionné woon maa war a jàll. yaa topp ci moom. maa topp ci liste bi. waaw mais Pape Diop nekk na fi maire nekk na fi lu nekk est-ce que Pape Diop euh, ngir dundal parti bi seulement euh, est-ce que warutoon bàyyi nga nekk maire. Abdou Khadre nga nekk député. xam nga au moins nga xam a am salaire am ndëgër laay nangam ak nangam yor oto dem ak dikk yor say affaire Abdou Khadre waaw su weesoo yàlla su sunuy waajur mhm. sunu lépp dañ koo bàyyi Serigne tubaa danoo jàpp ni pal mbirum yàlla la mais lii ngay wax wax ju rafet la mais bëri nañu nekk ci parti bi ñoo ne lii ma wax nii dinañ koy wax bokk gis-gis euh, li am solo mooy man maa lay wax na la bëri nañ ñoo xam ne surtout ay jigéen ay femmes yoo xamante ni xam naa leen bokk gis-gis ma yàgg ñëw nag ci seen ci seen réunion yi yàgg leen a dugg ci seen biir ñuy wax ne Pape Diop waroon naa mën a démissionné Moussa nekk député euh, man dama jàpp ni Pape Diop yéene na ma keroog bi ma tabbee ci list mhm. li des yàlla mooy dogal. Mhm. te gëm naa ni itam xam na ni moom ñun dañ bàyyi suñu lépp ànd ak moom. kon ma jàpp ni lu lu lu lu jot rek yomb li am solo mooy bi ñu engagé wu dañoo gëmoon. ndax doon nga xaar ma démissionné. Euh, man Pape Diop. jàpp naa ni nu mu defee rek. noonu la parce que mais ndax <laughs> sëñ Abdou uh-huh. bëgg nga comprendre benn mbir. su ma ànd ak Pape Diop. dafa am loo xam ne politique la am loo xam ne taalibi la. Mm-hmm. Pape Diop dama naw jikkoom ci nu muy dundee. ma jël ko def ko suma njiit jiital ko def ko kilifa itam suñuy rapport sori na trop ba tax na politique bëgguma mu dox waaw mais Pape Diop bu la tàggatee Pape Diop munul def assemblée national munu faa wax loo fa waxul te euh, am na fu mu toll moo jiite parti bi waroon naa bàyyi benn ndaw boo xamante ni bu fës la ci dakaar nekk député loolu mooy taxawaay bu Pape Diop waroon a wane loolu man maa koy wax ouvertement loolu sa yow yaa ko gis la sa gis-gisu bopp politiquement nag parlant stratégiquement aussi waaw ba tey man ma jàpp rek ni man daal maa ngi ci wetam di ko servir. waaw di servir la loolu nga mën a wax wax ju rafet. di ñaan yàlla aussi. Uh-huh. yàlla meññ yeneen ndam. ndax euh, ku karaw kam karaw gu ñuul euh, def la la war. li ci des rek mooy xaar suñu borom. jërëjëf euh, Moussa yow soo ma mayee balaa ah, ngay terminer parce que sinon. <laughs> Ah, waaw 30 secondes yàlla dafa def. hémodialyse. waaw ñi am insuffisance rénale. Mhm. ma yor seen communication. ñuy million ci Sénégal. am ci ñoo xam ne ni nii 750 rek la état jël en charge. ñi ci des yëpp semaine bu nekk 65000 la ñuy fay pour faju te dara joxu leen ko lu dool bouillon yi ñuy lekk képp ku am mbokk te nga am hypertension wala nga am jabet xamal ni mun na laa bañ mun na laa dal. bouillon yi bouillon yi mais ñaan ñëpp jóg nag ñu jàppale waa MIRS mooy mouvement bi nga xam ne ni président Amidou Diallo moo ko jiite. ñu mm. sensibiliser état. ndax euh, Abdou Khad bëgg naa nga ñëw fële seen siège ba. ci Bourguiba bi nga xool ni nit ñi mele ay ñu mm. mel ni yow ak man. Mm-hmm. ñaari fan yu nekk ñu changé seen deret. Mm. ku dem soo génnee dangay ngay yalwaan pour amaat soixante cinq mille. di ñaan état ni ci gën a bàyyi xel ndax dégg naa Côte d'Ivoire gii. ñu ngi defee jalis mille cinq cent di ñaan yàlla yàlla may leen wér ma nekk nag ci combat boobu fu ma ci dem di lancer appel sénégalais fu waay nekk ñu def te yàlla tax dimbale ñooñu ndax soxla nañ ko te seen kër gi soxla naa itam ngeen jàpp jàppalañ ci combat boobu ba yàlla wéral noonu euh, président Mbagnick Diop ma ngi lay dégg euh, Ouleymatou jàll mi def émission santé aussi ma ngi lay dégg kon mbokk yi euh, seen émission pencum réew mi la woon ñu invité woon tey Moussa Diakhaté nekk porte-parole bu bokk gis-gis ñu leen di sant bu baax a baax di leen di jox dig daje samedi